ngi sama micro je suis désolée léegi je disais euh, euh, mën na jël téléphone bi bu fekkee am na ñu ci nekk euh, su fekkee kenn nekk fi ñu daal di continuer ak Demba Guissé salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi noo def baa yaa ngi ci jàmm alhamdulilah ñu ngi lay bàyyi ak suñu papa ñu ngi leen ci jàmm alhamdulilah sëñ bi na def ñu ci jàmm bu baax alhamdulilah fooy wootee noonu maa ngi wootee fii Dakar ah Dakar mhm. teewlu nga waxtaan wi bu baax. waaw am na lu ma ci jot a teewlu. waaye ndorteel fi la fi fekk. waaw am na lu ma ci jot a teewlu li ma gën a yitteel ba tax ma woote sax. Hmm. mooy lu jëm ci wàllu eh, dawal oto bi ci géej gi ci Seydi El Ndaw. ah. wuyul bon waa <laughs> dama ne wuyul déglu ko <coughs> ñëwal. ñu ngi di di leen ndokkeel ci seen jotaay bu tedd boobu. ñu lay delloo bu baax ziar Saalum Saalum nga. waaw Saalum Saalum la am. foo dëkk ci Saalum. Kaolack Medinatu Cheikh Ibrahim. ah jërëjëf kon xam nga ndaw ku ndaa fa ne. waaw xam naa Seydou El Hadj Omar Ndaw. ah. xam ne moo jur sëñ Muntaxa bu El Hadj Omar Ndaw. sëñ Muntaxa defe naa moo jóge woon Gàmbi de. waaw moom moo duggoon ak oto bi ci féeri Gàmbi bi. Mm-hmm. ci bési ajjuma. Mm-hmm. ban année nag bu ñuy wax Faafa. nee na ban année la du woon en 93. la ko def. après. bi mu ko defee sax am na yeneen feeñuwaay yi ci feeñ yoo xam ne. dimbale ma ci lool rek. loolu bu ci dugg maa la ko ñaan. Eh. <laughs> waaw baax na incha allah. ndax alxuraan xajul ci boppu xaj. wallaay wallaay wax nga dëgg. Ah, te doon weet di ba pare. wallaay wax nga dëgg. sunu borom def nga dugg firndeel ma. wallaay wallaay wax nga nii rek laay dëkkee ak ñoom. mooy sant yàlla bu baax ba léegi de maa lay weet. waaye ñu ngi leen di ndokkeel bu baax. man je veux léegi waaw ma ne ko weddi moom fii la nekk gannaaw bu dëgg amee it weddi danay am. mais nañ ma wan ay preuve rek. nee na weddi fii lañ ko fekk gannaaw bu dëgg amee weddi day ñëw. naa ko jox vidéo boo xam ne. non man vidéo boobu laa bëgg bi muy jógee si ndox bi. waaw ah, ma ne. waaw. du préparé ba ñu programmé pour di ko vidéo. waaw. dafa nekk loo xam ne sëñ bi dafa bëggoon a dem julli ji jumaa. waaw mu ñëw fekk féeri bi tëj. bi mu ñëwee fekk féeri bi u euh, tëj mu ngi àndoon ak chauffeur bi ñu wax faafa faafa bi mu nelawee yàggut. waxtu àjjuma la woon mu doon ñaan njekk pour ñu may ko dafa war a julli ci jumaa. Mm-hmm. ni ñu xamee Gambien ci ni ñu ko doon tooñee naan ko mbokk féeri bi wàcc na fii kenn du fi bàyyi kenn. Mm-hmm. si la Seydi El Hadj Omar sëñ bi mun taxa wax ne. Hmm. faafa jëlal oto bi nga dawal ci géej gi dawal ñi dem ndax man mënumaa faat waxtu wi. ba mu ci jumaa. faafa ont sëriñ bi ne ko hmm. man de sëñ oto ci géej moom faafa hmm. mënu koo dawal mu ne ko ko ubbil maal bi nga jox ma satala ma yeesal njàpp Seydi Muntaxa masta dawal oto bi mu ubbee euh, sat maal bi jox ko satala bi ci la sëriñ bi yeesal njàpp ne ko dugal te nga noppi te noppi te gëmm noppi boobu te gëmm am na beneen feeñuwaay bu fa feeñ ci faafa moomu nga xam ne moom la sëriñ bi àndaloon mm-hmm. ci la sëñ Muntaxa dawal oto bi mu dem ci géej gi te it bokk na ci dawal gi bi mu jàllee bu xottee pënd bi jóg géej gi fermé wu bi mu àggee mu ngi fekk ki toog ci xilaaf gi muy sëñ Basiiru Ndaw di doomu Alaaji Omar Ndaw bi mu ñëwee mu ne ko li nga def de sàtt tarixa tijaan daf koy tere te bàyyi daf ko daan aaye mhm. mu ne ko ah maa ngi jéggalu Ndaw Kunda ci la nag xaal gi dikkalaat sëñ Basiiru Ndaw mi ci la ko wax ne ko yow sax mënoo bu doon man su ma fa jaaree ba jàll tali lay nekk. 93 googu sëñ taxaar dem na Amérique teeru bañ ko fa teeru di ko wax ne ko mbokk murid ya ko fa teeru di ko ndokkeel ci yitte jooju ci la leen di tontu ne da ngeen baax ndax nit xamal na la nit lu baax te du ko wax. ñuy wax ko ne ko karaama googu nga def mu ne leen du man yàlla la yàlla boo ko joxee sa lépp mu téye la sa lépp. ba nit ñi di foog na yow la tudd yow. kay dëgg. tontu boobu ak vidéo boobu maa ko am bu bëggee ma envoyé ko léegi sëriñ bi teew doon ni sëñ taxaa nag bu Alaaji Omar Ndaw bu teewee ñu koy waxal dara te dindiwu ko te dëggal ko ku xam wàlliwu yàlla bu toll noonu ñun buñ tollee ba jamono dégg ko koy di dañ naan ne loolu lu am la man mii di wax ak man yow su ma bàyyi Alaaji Babacar Alaaji Omar Ndaw moo ko jàngal Alaaji Omar Ndaw moomu moo jur sëñ Mountakha sëñ Mountakha moomu ak sama bàyyi ñoo doon ànd lii ma lay wax nag taarix la boo xam ne doomam ji ñuy wax alaaj Modou Sadix di xalifaam day ñëw fii dakaar di ma seet si. lu ma gëm la. muy alaaj Modou Sadix ndaw. ah weddi nag yàgg na fi mais sëñ Muntaxa sax bi mu paree bant bu wow bu mu toogoon da ngay meññi. bant bu toogoon da ngay jibbi moo taxoon ñu koy wëy sa wëy wa naan ko mooy borom sañ-sañ. borom sañ-sañ nag ci yàlla la waaye bu amee alal dénk la yow bon waan moomu alal ne la am ma may la. keneen ku ci soxla bu la neexee nga jox ko waaye defu ko woon comme ni jamono xewee nii damay def nangam daf ko defoon ne amatul pexe mu def ko defut ko tamit pour nit ñi juddu ci jamono gëm nañ ne def na nangam moom daal li ko taxoon di ko def mooy sëñ Muntaxa mooy waxtu boromam bi du ko faat ba mu ko defee la fi pare. juboo ak boromam. waaw bi mu paree ñu koy nettali sëriñ baa ngi am kersa sëgg ba nanguwut a xool nit ñi. dafa mel ni dem na. kooku dem na nag. ñu koy jaajëfal bu baax a baax. papa jëlal keneen 88 628 89 90 salaamaaleykum. ñaanal leen ma may toog fu ma dul weddee. weddi nag mën te ñàkk naam. Mhm. allo. allo waaw mais àddinaa nga xam ne du ma sa morom. <laughs> waaye àddinaa nga xam ne du ma moromam. <laughs> en tout cas ah, woote nañ dëggal la. nga ne. ma ne en tout cas woote na dëggal la. ma moroomam <laughs> man damaa gëm sama bopp. loolu histoire la damaa nangoo liggéey mën a dox. gàddu ah. sama tànk naan ci ñetti téeméeri teen. yu mhm. bokkul ab dëkk. histoire ngay raconté barka borom Touba. waaw mais mais day am tamit nag benn. doo fekkee benn duma rek. koo gis mu wàcc wala muy dafa am kersa. mais benn doo ko fekkee mais benn du lépp am preuve nag. man damay duma man du lépp moo am preuve. non damay duma damay na ñëw. di def saa mu toj 88 628 89 90. ah Bougane Gueye 88 628 28 28 00 221 33 841. ñi nga dajale fii 20 69. nelawatuma jëlal keneen naanatuma lekkatuma ndax téléspectateur yi bëgg lu may dugal seen nopp muy lu leer. ak lu wér. Mhm. mu jaral ma ñàkk lu nekk jaral ma paas lu nekk jaral ma dëgg sama tànk bi fu nekk ngir yéen mu jaral ma ko yéen ñaanal leen ma ba ma am oto bu baax boo xam ne sori day jege. su sori jege rek ngeen dégg lu rëy ñuy ñuy xajuma ci seen i am na ay am ay vidéo yu ñuy ah, yu ñuy xajuma seen i yeel. papa am na ay yu ñuy envoyé xam naa dama la koy bàyyi yow seetaan ko bu dee moom la après ñu mën koo jox waa régie. nan joxe léegi euh, comme ça ñu mën ko. soo ko gisee am na ku weex taxaw ko yor ab bi jaaw nii. moom la bi nu paree ñu ngi taxaw di ko wax. naan ko waay c'est ça daara yi da nga xam ne moom mooy daara maam maam bu Buso. Mm-hmm. ca Porokhane diw mii moo fa nangam. xoolal ba xam indi envoy leen ko rapidement. te papa ñu jot ay message yu bëri yuy dëggal li ngay wax. Oh, oh, duma seen morom. Mhm. kooku ma lay wax ndaw kundaa la bëlëb ndukumaan la saagun waali jaata waali ñaxana waali wal waali ñii la waali muru mbàkke jur ternaa maali ñu jàmm ngir ñu gàddaayee naa maali fuuta dugg waalo génn jolof ñëw fekk fa naam njaay fekk fa naam jeng ñi dëkke bopp dëkk bi ñi dëkkee digg dëkk bi ñoom ñu ne du ñu bokk ci ngàllo du ñu doon ab jaam nit du leen diriger kenn du leen commandé ñoom ndaw ku nday dem fa ñuy wax géeneen te génnu dëkk ba ñu dëkk fa tuddee seen bopp géeneen muy génnu dëkk ba na jóg ci kaw na jóg na jóg na <laughs> laa lay wax kii kii man mais nag euh, li mooy li mooy importance moom euh, présence su Père Mbaye ci plateau bi ñëpp waaw ba bët dama leen di duma dëgg damaa dox